alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci suun wa xaqiqati kun sirrihil masuun sayyidina wa mawlana muhammadin il maymuun wa ala alihi wa saxaabatihi tayyibina tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin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 te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibbee ko ci sama xol di ko gunge sama juróom ñaari baaraam yi wala di ko gunge sama juróomi baaraam yi boole ko juróomi baat yi kenn ku nekk fa nga nekk ma jox la juróomi baat yi ci làmmiñ joxale la juróomi baat juróomi baaraam yi ci maana di ñaan ngeen nangul ñu ko ci ni baat yi toll te bañ ñu koo nangulee ki ñun ñu xeebu ñi ni ñu toll te baat yi rek mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, di baat yoo xam ne euh, dëgg-dëgg xaqiqatan boo ko seetee baatu nuyoo àdduna taxut koo jug waaye sa dëgg-dëgg baatab nuyoo maanaa mu rëy mi mu làmboo maanaam li ko tax a jug dëgg mooy àllaaxira boo gisee nag ñi koy nuyoo wante fii ci njàngaleem sayyiduna muhammad sant ñu ko dafa cee jublu gàtt nga ëllëg muy tafaawul pour ñu dugg aljaana di ko fa joxante xaqiiqatan nuyoo bii li ko tax a jug dëgg dëgg dëgg mooy ganaaw bu jëlee suñu loosmaa yi ci aljana di ko joxante moom nga dégg alquran ne daawaahum fiha subhanaka wa taxiyatuhum fiha salaamun kon bu ñuy woote xante foofa ci sàbbal yàlla lay doon waaye suñu nuyoo ca foofa mooy baatab laa ilaha asalaamu aleykum wa wa barakaatu kon da'waahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum salaamu kon buñ koy joxe fii ci àdduna rek gaab nga dugg aljaana ëllëg di ko fa joxante lay doon moo tax nuyoo bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ko jaamoo yàlla fii ci kaw suuf dugg aljana jël suñ loosement continuer di ko fa jaamoo yàlla loola nuyoo ci la bokk loola bàkk turu yàlla wu màgg wi di laa ilaha illa muhammadu rasulullahi ca la bokk loola tamit sàbbal yàlla ci subhanallah sant yàlla di ko bàkk ci alhamdulillah yooyu yëpp dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne danañ ko jaamoo yàlla fii ci kaw suuf dee dugg aljana continuer di ko fa jaamoo yàlla waaye julleeg li muy foor foor loo ci man def ko fii la yem xéggul aljana joxe asaka loo ci man def ko fii la yem ku xas dugg aljana dootoo joxe di asaka su ko defee woor weeru koor koor sax gu mën a doon loo ci man def ko fii suñ xasee dugg aljana dootuñ ko fa jaamooti waaye yii nag moom dañuy continuer di ko jaamoo yàlla ci àdduna dugg aljana yàlla yenkiwal ñu ko ñu di ko jaamu waaye jaamoo ga nag du jur benn coono doo ko yëg sax day jàppandi ci yow comme ne sa noy gi ni mu jàppandee ci yow yaa ngi noyyi waaye jurul la benn coono moo tax kon jaami yàlla jaamu yàlla yi xam coono yépp ñi ko doon jaamoo yàlla fii ci àdduna buñ xasee dugg aljana rek yàlla day wax ne coono jeex na yooyu yëpp tegee leen ko à côté bu ko defee mu desat ñun ci jaamu boo xam ne walilahi alhamdu wa sukuru dañ koy dañ ko koy delloo di ko ko santee di ko ko bàkkee ci loo xam ne ni duhut coono loolu la sàbbaal ko joxante ay nuyoo tamit ci la bokk nuyoo nag lu xam doole la am gi am doole moo tax maanaam ñu bëgg buñ la nuyooyee rek nga fayee nu gën ñu la nuyoo nuyooyee loolu nag sharia yépp ci d'accord sariya bi yonantu bi mi ngi jàngale ne buñ la nuyoo na nga fayee nu gën niñ la nuyoo boo ko mënut nga fayee niñ la moom la alquran ne wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha suñ leen nuyootee na ngeen delloo nu gën a rafet niñ leen nuyoo su ngeen ca lottee ba mënu leen a delloo ngeen delloo ñu kem niñ leen nuyoo moo tax boo toogee nit ki ñëw ne la assalaamu aleykum dolli ko ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa rahmatullahi dolli ko ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bu ne la nag assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mënatoo koo dollee ci dara jox ko lim la jox rek ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ndax yonentoo waxoon ne xaddu salaami albaraka maanaam dayoob nuyoo mi ngi xem ci baatab barakatu doo ca xasee hegg mën a too dolleeti borom dara moo tax yonentu mos naa toog benn waaye ñëw ne ko asalaamu aleykum mu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah kan yéen ñëw ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñëw ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaja nag ne ko yow ñaar ñi dolli nga leen kenn ku ne dara te man dolli woo ma dara mu ne ko da ngaa yegg ci cëppaandaw gi nga xam ne ndollal amatu fa parce que pot bi pot bi moo fees pot bi bu xasee fees nag mënatuñ caa sotteeti dara kon nag mooy mooy mooy xaddu salaam yi albaraka fi la mbir mi xam kon nag ku la nuyooti waay waay waaye waay na nga fexe nga nga fay ko ba wis ko loola mooy mbaax ndax ku la xas yéene jàmm mënatoo koo fayati ku la yéene jàmm ba tax te mu yéene gi mu firndeel ko ci làmmiñam mu dëggu mu nekk lu dëggu ci xolam kooka loo ko dolli ci teraanga buuñaa ko ko yàlla xeeb na ko ndax jox na la lu ëpp ci lim am te mooy yéene lu baax muy ab jàmm moo tax tamit ki sariyaab yonent yàlla Ibrahim suñu la mosaa na nuyu da ngay fay nu gën a rafet niñ la nuyoo moo tax maanaam malaaka yi bi ñu ñëwee nuyu yonantu yàlla ibrahima fekk mi ngi toog xaalu man lañ ko wax ibrahima ne xaala salaamun su ko defee kon boo seetee malaaka yi dañoo nuyoo ibrahima ci jumlatul fi'liya ibrahima fayee leen ci jumlatul ismiya soo jàngee balaaxa nag dafay wax ne jumlatul ismiya moo ëpp doole jumlatul fi'liya moo tax ñële di malaaka ya jumlatul fi'liya nu sallimu aleykum salaaman la ibrahima nag moom fay lañ ci jumlatul ismee ci salaamun ay salaamun aleykum aleykum salaam ñaar yëpp mën na aleykum yëpp mën na su ko defee kon nag ñi nuyu la nga fayee nu gën a rafet ni ñu la nuyoo sharia yëpp ci d'accord shari'a bi yonent bi wax naa la ko ci wa ida xuyitum bi taxiyatin shari'a bi yonent yàlla Moussa wax naa la ko ci qaalu salaaman qaala salaamun su ko defee kii di jumlatul fi'liya kii di jumlatul ismiya ñu nag ña jàng naxu wàllu grammaire nga balaaka nag ñooy xam doole ji nga xam ne ñoom ñoom am nañ ko doole ji nga xam ne nii ñoom ñaar yooyu am nañ ko li nga xam ne tamit ko su ko defee kon nag maa ngi leen di jox nuyoo yooyu tibbee ko ci sama xol di ñaan ngeen nangu leen ko ci ni ñu ni ngeen tollu ak ni baat yi tollu bañ ñu ko nangulee ci ñun ñi nga xam ne dañoo xeebu ci ni nga xam ne tollu nañ ko euh, baat baa ngoog di baatab laa ilaha illallah ma amoon lu ma la ci sosoloon ci waxtaan yi yëpp paase ñëw nag fas yéenee sof loolu nga xam ne tamit maanaam sosoon nañ ko ci euh, boo seetee baat bi ñaar fukki xaraf la ak ñeent ñaar fukki xaraf ak ñeent yu toftaloo ni mu bëree waaye li muy bari bari bari amul tomb muy tekki ne yàlla dafa fiira fiira fiir ba baat yañ koy wéetalee sax dafa caa fiire tomb nekk ca baat ya dafa mujj wéet ba wéet ci tomb kon yàlla bëggul dara lu ko jege luñ koy bokkaa lekk fokk kon ni baat yi wéetee ci tomb bu ko ñëw bokkaale ko ci te bokkut ca noonu lañu war a fexee wéetalee ko yàlla ci baat yi di tegtale ak wéetam su ko defee la cay gëddëm ak màggaayam nga ak dayoom ba ak darajaam ja walillaahi alhamdu wa sukuru ñu jox ko ko ko mat sëkk ca nañ ko manee ca baat yaag li nga xam ne nii mën na ko su ko defee yonantu bi mu ngi wax baat yaag doole ji mu am ci xadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali mu ne yonantu bi nee na ma ila rabbi fa yusafiuni xata aqula ya rabbi safi'ni fi man qaala la ilaha illa allah fa yaqulu llahu taala hadihi laysat laka ya muhammadu wa innama hiya lii wa izzati wa jalali wa xilmi wa rahmati la adau fi nnaari ahadan qaala la ilaha illa allahu yonentu bi nee na bu yowmal qiyaamee du ma dañ di ràmmulu ci sama borom yow yàlla dimbale ma ma rambu diw dimbale ma ma rambu dëkk sàngam dimbale ma ma rambu xeetu sàngam yàlla ne ma rammal may rammu di rammu di rammu di rammu ba mu mujj ma ne ko yow yàlla dimbale ma ma rammu rek képp ku ma sa wax baatab laa ilaha illallah donte wenn yoon la léegi nag yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ju yaatu jenne ko yow yonantu bi ki wax baat bi amut ak yow affaire ba nga koy ràmmu ki wax baat bi man la am ak affaire maa ngi lay xamal ne gëñ naa ci sama màgg ak sama tedd nga ak sama lewet ak sama yërmande duma dugal mukk mukk mukk safara benn nit boo xam ne wax na baatab laa ilaha illallah kon baat bi jar naa bari doole jooju baat bee tax kon ku ko wax amatuloog yonantu bi affaire mais yàlla ci boppam mi nga bàkk te mu nekk ku bàkkuwu moom kenn mooma maanaam moom nga am ak affaire ah, baat bi nag lu bari tour la turam ba ci gën a siiw dañ koy tuddee kalimatul ixlaas kalimatul ixlaas ci tur ya la loolu tamit maanaam seyduna omar a waxoon ana uhaddisukum ma hiya hiya kalimatul ixlaas allati alzamuha alzamaha wa ashaabuhu wa hiya la ilaha illa allah ah, mu ne maa ngi man Omar pare naa ngir wax ak yéen waxtaan ak yéen ci baat bu sell bi ba mu ko waxee di baat boo xam ne moom la yonent bi takkoo woon ci dundam di baat boo xam ne moom la ay sahabaam di takkoo ci seen ak dund léegi nag ñu laaj ko mu ne baat boobu mooy baatab laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa boo jëlee ba tey jëlee nañ ci tabaarakallaahu abi hurayra mu ne yonentu baa ngi wax ne ki gën a ci nit ñi ci sag kan la yow abi hurayra mu ne ko man daal foogoon naa ne lii kenn duma ko laaj waaye xam naa ne yow mii kenn kenn du ma ko laaj ku la njëkk yow mii yàgg na yàlla ci laaj ma ko ngir xir gi nga xir ci xam-xam waaye maa ngi lay xamal ne ki gën a texe ci mbindéef yi ci sama ramu mooy ki wax baatab laa ilaha illallahu te ba koy wax mu sellal ko ci xolam sellal ko ci bakkanam amul benn jaam buy wax baatab laa ilaha illallahu mu sell mu sellal ko ci xolam lu dul ba yéeg na moom baat ba te amul benn kiiraay bu koy mën a delloo lu dul ba baat ba day xegg directement ca yàlla yàlla xool ci bëtab yërmandeem bu yaatu ba ki wax baat bi yàlla nag dégg nga ko maanaam du xool jëmee ci du xool jëmee ci wala yanzuru llahu taala ila muwahidin illa rahimahu yàlla du xool mukk jëmee ci ku koy wéetal lu dul ba yërëm na ko yàlla comme xool bëtab yërmandeem bu yaatu booba rek li muy tekki mooy yërëm na la kon baat baa ngoog ak doole ju rëy ji nga xam ne nii baat bi am na ko ah, baat bi tamit boo ko seetee turam ya dañ koy tuddee maanaam kalimatu shahada ndax moom mooy baat bi nga xam ne ci la ñuy seedee kenn ak yàlla ga ak maanaam nekkam ga eh, moom kon moo tax ñu koy tuddee baatu maanaam shahada dañ koy tuddee tamit kalimata shahada ñaari baatu seede yi bu ñu wax na ñaari baatu seede yi na ko tudd nag kooku dañ ci namm laa ilaha illa allahu ak muhammadu rasulullahi ndax ñoom ñaar boo ko waxee saxal nga boo saxalee yàlla ci baat ci ñaari baat yooyu rek saxalal nga yàlla lépp saxalal nga tamit yonantu bi ak yonantu ci ko jiitu woon seen lépp saxal nga tamit lépp lu ñu yonantu bi solo te suñ bët bi tegewut ca waaye dégg-dégg rek lañ ca am te moom li mu ñu solo rek dañ ko war a gëm ndax wa maa yantiqu anil hawa kon baat boobu am na doole ba tax ñu ko tuddee kalimata shahadati di ko tuddee tamit kalimatu shahadati ku mu ci yooyu bokk na ca turam yi nga xam ne tabaarakallaahu ya ca gën a siiw la ci maanaam wàllu baat boobu kon nag mbokki jullit yi man ak yéen yëpp nañu góorgóorlu ci bëril baatab laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu xiw la woo xam ne wu bëree bëree bëri la ba tax na yàlla ma koy joxe dong moo xam dayoom ba nam toll waaye ñun jaamam yu xeebu yu lott yi ñu koy jox du ñu xam loola na mu toll dëgg dëgg dëgg dëgg ba tax na tamit yonantu baa ngi wax ne kullukum yadxulul jannata ila man aba qiila ya rasulullahi man man yaba qaala man aba an yaqula la ilaha illa muhammadu rasulullah yonent bi dafa mos a toog saaba ko mu ne leen yéen ñëpp aljana ngeen jëm ba mooy ki bañ a dem aljana saaba yi ne ko kuy bañ a dem aljana aljana ku koy bañ a dem am naam mu ne ah kay ki ma nga dem aljana mooy ki bañ a wax baatab laa ilaha illa muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne bañ nga koo wax nag moom dund ba dee waxu ko kooka bañ nga kon su boobaa li muy tekki yow mooma safara rek ngay def moo tax gis nga baat bi foor gi mu foor a tax mbooleem tabaarakallaahu euh, maanaam gaa yi yàlla yi yàlla baaxee leen jox leen ay turuq mu ci yar jaami yàlla yi koo ca dem yur doon wax wu mun di doon baatab laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ma nga ca amul wenn wirdo wuy bàyyeekoo ci yàlla di ñëw ci jaamam yi gaa yi jaamam yi di ko jariñoo di ci jublu pour mu jege leen yàlla wàññi leen aw yoon lu dul ba danga ca fekk baatab laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama di baat boo xam ne ku ko xas wax dugg nga ci tataay yàlla ji kon nag ku xas dugg ci tataay yàlla ji maanaam yàlla lay protéger boppam amatul kenn wala lenn lu lay mënal dara kon nañu góor góorlu maanaam ci bëri lu ñuy tudd baat boobu nga xam ne am na doole lool ba yonentu baa ngi wax ne laa ilaha illa allahu xisni wa man daxala xisni amina min azabi laa ilaha illa mooy sama tata ku wax laa ilaha illa allah maanaam rek dugg nga sama tata te man képp ku dugg sama tata gi a hóolu ci sama mbugal mi ndax duma la mbugal laa ilaha waxdahu laa yakunu xisnaan wa innama huwa baadul xisni rek waxin la maanaam laa ilaha illallahu duhut ne mooy jëmi tata ji waaye moom ci boppam lenn la ci tataay yàlla yu yaatu yi nga xam ne dafa bëri kon nag góor góorgóorlu ci bari lu ñuy wax baat bi dañu nañu góorgóorlu tabaarakallaahu ci bëri luñ ciy sax nañu góorgóorlu ci tàmmal ko suñu làmmiñ wi nañu góorlu ci baat bi lépp loo xam ne tabaarakallaahu ëmb na ko ñu góorgóorlu tamit maanaam nekk ci sax ci lool di ci góor góorlu su boobaa yàlla ci mbaaxam mën nañoo dimbalee ba ñu mucc ci mbooleem xeeti bakkaar yu bon yi nga xam ne dafa ñuy tilimal ak xeeti lépp loo xam ne tabaarakallaahu tamit dafa ñuy yàqal loolu lépp buñ saxee ci baatab laa ilaha illallah rek mën nañ cee mucc moom la yàlla waxoon yonent bi ne ko faalam annahu laa ilaha illallah bu ko defee kon na nga xam nga danga na nga fas ne benn buur amul lu dul baatab lu dul laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kenn amul ku dul moom su ko defee kon baat la boo xam ne dañ koo war a fas ci xol baat la boo xam ne dañ koo war a pratiquer ci li mu ëmb baat la boo xam ne dañ koo war a wax ci suñu làmmiñ yi baat la boo xam ne dañ koo war a bëril fu ñu toll tabaarakallaahu tamit di bari loo xam ne ni dañ kooy wax kon mbokki jullit ñi maa ngi leen di xiir di xiir sama bopp ñi bëril baat boobu sax ci ndax ëllëgee bu ñu demee ba dara de lu desulul jël euh, maanaam jël euh, suñu lalab sukkuraat baat boobu mujj ci suñu làmmiñ su ko defee ñun ñëpp ñu bokk texe dem aljana te wax dëgg yàlla képp koo xam ne yàlla baax na la ba dugal la aljana rek teral na la ñàkkatoo dara waaye yàllaa ngi wax ne ku ma dugal safara man yàlla toroxal naa la toroxal ak yàlla ci jaam daal du mat sëkk lu dul ba jaam bi yàlla dugal na ko safara bu xasee dugg safara rek nag toroxal ak yàlla ci moom mat na sëkk mënatuta paaseeti loola kon nag baat bi dafa ñëw ngir matal ñu ku bëgg a mat dangay fexe di bëri di taqoog ku mat ki ku mat ki na kenn rek la yàlla euh, soo bëree looy tudd turam wi moom ci boppam ci mbaaxam gi mën na laa matal ca matam ga te yàlla ku matal ca matam ga yow ci sa bopp dootoo manquéti yëf yi yu bëri yu manquéti tamit doo ko saxooti ba tax na lépp la dalati rek ci bàkkaar wala ci njuum te rëcc rëcc lay doon waaye duxatul looy toog ne yaa ngi koy xaar ba mu ñëw dal ci sa kaw kon laa ilaha illallah ngoog yonent bi fonkoon na ko bëri lum ko daan wax lool bëri tamit lum ko daan saxoo lool eh, ba mbiram yëpp loolu rek la woon laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi laa ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba gis nga ma ngi lay sant sax bi nga jullee ba pare sëlmal bees mun la na nga sàbbal yàlla sant ko bàkk ko maanaam benn bu ne fanweer yoon ak ñett subhanallah walhamdulilah wallahu akbar bu boobaa téeméer bu manqué benn lay doon mu ne su boobaa nag benn booba manqué ca téeméer ba nga mottalee ko laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon baatangoog bu xam xam doole nañ ci góorgóorlu nañ ci sax nañ bëri luñ koy def xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ma ñëw ak yow nag comme bàkkaar dafa bëri bëri na yu borom xam-xam yi dajale ñu baax yéen jaami yàlla yi ñëpp dem safara yéen jaami yàlla yi ñëpp mucc ci safara yéen jaamu yàlla yi bu kenn dem safara comme ñu ñu bon ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg dem safara bëgg ñëpp dem safara ñu baax ñoo ñan ak ñoom dañuy bañ kenn dem safara ba tax na lépp loo xam ne soo ko defee ci bàkkaar te boo boo tuubee yàlla jéggal la ko rek ñu ñu ubbi la bunt yooyu buñ ca xem nag def tamit lépp loo xam ne soo xamee bàkkaar nga def ko rek wala nga wax ko rek sa bàkkaar ba ca saasa yàlla jéggal la ko am na ci yoo xam ne soo ko defee sa bàkkaar yu njëkk ya ak yu mujj yëpp la ñuy boole jéggal la ko am ci yoo xam ne maanaam yu jiitu woon rek lañ lay jéggal waaye nag yu yu mujjee bokkuñ ci am ci yoo xam ne yu ndaw ya rek lañ lay jéggal waaye yu mag ya bokkuñ ci am ci yoo xam ne yu mag yi ak yu ndaw yi yu nëbbu yi ak yu feeñ yi yëpp yi nga tay yi nga tayut yi nga xam yi nga xamut yi nga defoon ak yi nga defagut yëpp ci baax ak yàlla nii lay boole jéggal la yëpp te loola ak jullit bu nekk war na koo fexe sonne ko di ko def ndax yàlla ku baax la loo bari bari bàkkaar boo ko tàllalee say loxo jéggalu ko rek mu jéggal la nga tuub ko ci melow xalu safara tuub mënta wér mukk mukk mukk bay jéggal boromam lu dul dafa yore melaw xalu safara mooy nga réccu ko buddeeku ca yéene ci sa xol ne li des ci sa dund mukk dootoo ci dellooti ñett yi boo xamee lu sa bàkk rëy rëy rëy na nga rafet njortu su ko defee xam ne yàlla jéggal na la waaye bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi mooy nga tooñ yàlla réccu ko buddeeku ca yéen dootoo ca dellooti ba pare sa xel mi lam-lamee ndax yàlla jéggal na maam jéggalu ma loolu sax bàkkaar la kon su boobaa rek da ngay rafetal xol te yàlla wax ne wa man yaamal su an aw yaxlim nafsahu summa yastaxfirillah yajidillaha gafuran rahima kon ku def lu ñaaw boo wala nga tooñ sa bopp gu mën a doon boole ko jégalu yàlla rek yàlla moom jégale yaa kon la ku baax la moo xam bàkkaar ba bu mu mën a doon nga seq koog yàlla direct boo ko seqi sama moromam nit nag gannaaw bi nga tuubee jégalu yàlla réccu bu deeku ca moom mooma da nga koy dabaatal xàq ya buy loo ko sànkoon ci àllam nga delloo ko te baalu ko baalu ko ak ci li nga ko tardeel su boobaa nag moom su boobaa maanaam bu bàkkaar ba mooy mujj wàcc la bu loolu amul nag boo lëggee bu ngeen dajee ca kanam yàlla sa yiw bu baax wi lañ koy fayee bu jeexee te jeexut ñu jël lu bonoom la këppal la ko ndax bàkkaar ñett la day am bàkkaar boo xam ne yàlla du ko jéggale mukk kooku mooy bokkaale am bàkkaar boo xam ne mën na koo mën na koo jéggale de mooy lu dul bokkaale am bàkkaar boo xam ne yoonam ni wuute de mooy boo tooñ sa moromam nit kooka ka nga tooñ moo la mën a jéggal wala yow ci sa bopp ngay jaamu katam yàlla bu baax bari aw yiw lool ba bu yowmal xiyaamee yàlla mooy jël ci màng si ni yiwam ya fayal la sa yoon dootul nekkati sa digganteeg kooka loolu nag yiw bari moo ko man wala ñu jël say yiw